ca la siyaare ñuy jottali kàddu yi nag ci turu kilifa yi nga xam ne ñoom nga teg ci suñu kanam ñuy doxal màggal bi mu mel ne soxna maam Bousso ak sëriñ Abdouloo mi nga xam ne moo jiite section bi ak sëriñ Baaraloo mi nga xam ne moo jiite jamaatul diina Moustapha Dieng seneraal mu jiite dong yi ak mboolem taalibe yi ñépp a ngi ni ci sa kanam di la nuyu ca di la siyaare di dellu di wax rek nañ ko daa waxe ak yow muy fu ñu jàkkaarloo yow bala ñuy jàll ñu yeesal suñu jaayante ak yow Mbàkke cay ñaan na nga ñu ko ndax dégg nañ bu yàggul rek ci 4 mars soññee bi nga xam ne tegaan nga ko ci suñuy mbagg waaye Mbàkke ñu ngi lay xamal ne mbooloo mi nee nañ dégg nañ ko bu baax na nga xam ne woowoo mbooloo mi ne ñëw leen gëm leen ma de mbooloo mi ñu daw ne la dann ne la Mbàkke yow lañ gëm kon Serigne Moustapha mbooloo mi wax na ne ñoo la tànn doxale la seen diggante ak Serigne Touba te nga doy leen sëkk ca ñu gëm la. kon day wax na nes tol Serigne Touba bi nga tek sen kanam ci suba ak ngone ya nga xippi say bët tek len ko di len xol nuñu ci doxé sam xel na dal ci xamna mbay mi dana set mba lepp luy temu set sun bakkan du ko fekke ci nang ab toolu bi di am murit di ab julli lepp lum ak bakkanam lolu deug la ñoo ngi lay ñaan dal yalla na nga nu ñaanal nang suñ borom musa ni saytane ndax mboolem ko xamne mas nga rañan ci ak mo dox sa digg ak sa borom loola nag mënuñu ci dara moom bàyyee nan la ko waaye leneen li nga xam ne mën nañ ci dara muy saayir si moom bàyyee ñu ko rek bu soobee yàlla tool bi dana set insha allah bu loolu jàllee itam ñooñi ma tudd kat dañuy ay kuréel yoo xam ne dañoo bokk ci mbooloo mi waaye kuréel gu mag gi nga xam ne nag moo yilif mbooloo mépp muy ahibaayil xadim fu fi waay mën a nekk ci réew ba bitim réew na nga xam ne ñëpp a ngi nii toog ci sa kanam tey déglu sa soxna maam bu sa di suñu jëwriñ nekk ne toog ànd ak ay jëwriñam yoo xam ne jóge nañ ci section yi ñëw teewe si liggéey bii ki ci jiitu jóge ci section Diourbel ñu koy wax soxna Marème Diang section Kaolack soxna Abi Kan ñëw na section Kébémer soxna Dior Dangoura ñëw na section Thiès soxna Ami Sall ñëw na section Taïf soxna si la ñëw na section Sagata soxna Maram Kebe teew si na soxna si nee na ñii de ay jëw jëwri ñun loo xam ne nii ñoo ko teewal ci section yi teew si na ak seenu njaboot mu ngi lay seedeel it seenu liggéey di la ñaanal itam di ñaan nga ñaanal leen suñu borom dolli leen a dimbule ñu tafu ci ginnaawam ba li nga bëgg a liggéeyal sëñ Mouhamad lépp mu liggéeyal la ko. loolu nag Mbàkke waxoon naa la ko wi am at ndax ñun ñi mu bokkal tool bi ñoo mën a seede liggéeyam tool bi yépp maase nañ ànd di ko ñaanal moom soxna Mame Bousso yal na ko suñ boroom dimbale yal na ko yàlla jàppale ndax ak bëggam sëñ Mouhamed day ginnaaw sëñ Mouhamed nga toog ci sees bi la ko ñëpp mën a seede tool bi bu ne mën nga koo seede kon nag yal na ko ñaanal ca ñaanal ñu liggéey bii nga teg suñu kanam daal suñu bakkan lañ ci gar incha allah wasalaamu aleykum jërë ngeen jëf min alsheytaan alrajim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 mi ngi nuyu jëriñ yi nga xam ne ñoo joti liggéey yi te teew fi di nuyu itam mboolem mbokki kër sëñ Tuubaa yi nga xam ne teew nañ fi ak yi fi deewoon te suba ba léegi fépp fu fi waay bàyyi ko ñëw ci barab bi sëriñ bi nee na ngi lay sant bu baax mi ngi lay gërëm mi ngi lay ñaanal ko bokk teewaat suñu borom gërëm lépp luñ fi def ci barki Seexul Xadim nee na nag bëgg na rek ñu waxtaan ci ñaari tomb yoo xam ne dañ koy tënk rek. ndax soññee lay doon ak fàttali ndax yaar yooyu di soññee ak fàttali suñu borom a ko digle dafa bokk ñoom ci seen mission li ñu li ñu li ñu ñu war a jëf daf caa bokk di fàttalee ak di soññee wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminina ak fa sakkiri innama anta muzakkir loolu lépp suñu borom daf cee wax ñett bi saa salaam ne ko bul dañ fàttale fàttalee kon sëriñ bi na nga xam ne day fàttalee rek waaye li muy wax moo ko noonu ko bokk. ndax noo bokk yenn yéene ji bokk benn liggéey bi bokk jëmukaay ba ca jéetu nee na mi ngi soññ kenn ko ne noonu di la fàttali bu baax nga góor góorlu ci jaamu yàlla góor góorgóorlu bu baax ci bàyyi xel sa borom sëg wéet ak sëg wéttaliku te xam ne sunu borom mi ngi gis lépp xam na lépp te lu ko soob def te kenn du ko laaj tar la tax nga def ko kon nee na mat nan ko bàyyi xel bu baax. nee na ci loolu nag ngir bàyyi xel googu mën a rafet mi ngi ni dénk tomb boo am solo boo xam ne ku ci ne mën ngaa rafet njot ci sa bopp te loolu mooy rafetal jikko yi rafetal jikko bu baax rafet jikko nag dafay lu am solo ndax sunu borom day tagg gi mu tagg yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci alxuraan ba mu koy takk ci jikko ji rek la ko tagg ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin kon nee na loolu bëgg nañu taxaw ci bu baax taxaw ci rafetal jikko yi bu baax a baax rafetal jikko nag nee na ci yetti mbir yi rek lañ koy lay sukkandiku nga xool sa diggante ak sa boroom lam laaj nga def ko ci wétu ci wétu nga xool sa diggante ak sa moroomi jaami yàlla lam laaj nga def ko ci sa wétu sa wétu bu ñetteel ba nag. nga xool nag sa diggante sa jibbi bopp ji yow sa bopp lam laaj nga taxaw ci yett yu boo ko defee rek makaarimul akhlaq mat sa jëmi bopp ji nag nee na ay cër la ñu suñ borom boole jenn ju ne moom mu am lu ko sant loo xam ne loolu mooy tax sa mbir yéwén tey ak ëllëg cër yooyu nag nee na benn bu ci ne doonal ab sàmm boo xam ne bis boo xëyee di ko bàyyi xel di ko xool ak di taxaw ci mbiram ak di ko xàjj ndax ëllëg a ngi ñëw kat benn cër bu ci ne moy taxaw waxama waxal bopam benn bu ci ne moy taxaw waxal bopam kan mo sun borom wala fàttali ne yàlla laa wax ci qur'an bu kulluhum ati yowmal qiyamati fardan li bindi fi yalla yi bari bari bari bari sun borom neena bis dana ñew ma kenn kenn ak yéen audience ñi rappel kenn par kenn mu jar jarnoog sun borom bu boba nak lay amutu fa waaye cër yi la yalla joxoon li tax sañu bëgg ñu sàmmante suñu jëm bop ji cër yoy ñoy juk benn bu ne kanamu yàlla présenté wu ne ko lii laa daan def moo tax sa bëgg nu bàyyi xel lool lool te loolu kat luy ñëw la ndax alxuraan wax na sax dem ba ne ba ne nit ki day dem ba tiit ci li cër yi wax bañ mu àgg ci loo xam ne bëggut ku ko xam te fekk xamu ne yàlla xam ne lépp ba mu àgg ci daan li ma shahidtum alayna nit kay wax loolu li ma shahidtum alayna waaye yéen cër yi lu ngeen di wax nii bu ko defee cër yi ne ko xaalu antaqana allahu alladhi antaqa kull shay yalla mi xé lu mu bëgg wax lo mu wax mo nu wax lo ñu jox ko contrat yépp wax nañ ne bu boba sun borom li mu wax ne yermane mi yatuna lepp bari na jamm yalla yi ñu ci ëpp ñoo xane bu boba bu ci ri waxé ba yagal bu nit ki lox ak tiit sun borom dafa nak wa légui nak lo xalat nak sama digënté ak li nga def bu ko defé koku tiit lo dara propi lamay ñu dam duma wax néna bu der nee na suñu borom ne ko teg loxo ne ko yé ne ko loolu ñu yow yërmaande ji nga daan digg ci àddina fii la amee njariñ bis naka te yërëm naa la suturaal naa la kenn du la xamal dara wéyal loolu moo tax jàmm yàlla te yaakaar yàlla baax ndax yërëm wa rahmat wasiat kulli shay yàlla yërmaane dafa yàlla kon moo tax sëy bëgg ñu taxaw foofu dem beneen bi ci des nee na jë nee na na jikko ju rafet ci ñaari mbir la nit yàlla ñaar ko séq saahir ak baatin suturay sayir daa am ak suturay bàttin suturay sayir mooy mbubb yi ñuy sol ak yére yi ak lu demee noonu ak loolu mooy suturay sayir mooy mooy suturaal sa sayir ci kaw waaye suturas bàttin nag mooy jikko ju rafet jikko ju rafet mooy rafetal ab xol mooy rafetal biiru nit ki waaye ay ay yére moom kaw ak jëmm rek lay rafetal moom moom la yéwénal waaye nag yaar yëpp a baax ndax suñu borom moo ko digle moo wax ne yaa bani aadama xad anzalna aleykum libaasan يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكر لهم يذكر كون لولو القرآن كون دي سترس باتن اك سترس سير لول رك مو فين واي نينا باتن بي با رافيتال كو تي جيكو يرافيت ناخ سير سي يري صاح مانا لا كو لاجيكو تاب تي نيت مين نام وار مل تي فرثاث ثوبك لا يزيدك رفعه inda al ilahi wa anta abdun mujrimu yëri yu ras wala yëri bees lépp ci am bu fekkente ne sa xol bi laabut deret la jariñ dara waaye xol bu laab waaye li nga xam ne mooy fi yàllay xool ci nit ki te nee na jikko mooy laabal xol nee na nag ñeent mbir a gi yoo xam ne wala juróom benn bu ci ne suñ ci sukkandikoo yàlla mën na noo dimbali ci jikko ji rafet yooyu ji nga xam bëgg na ko ci noonu ba ci jiitu mooy sëriñ bi ne mi ngi kenn ku ne ci noonu na fexee jëflante ak mbokk jullitam ni mu bëgg jullit ñi jëflante koog ñoom kenn ko nekk loo bëgg nit ñi def la noona sëriñ bi neen na nga fexe bay def def nit ñi loo bëgg ñu wax loo loo bëgg loo bañ ko la ko waxal bul ko waxal loo bañ ko la ko def bul ko def kenn loolu mooy aamili naasa kama tuhibu an yuaamilu ko sëriñ bi nee na kenn ku ne ci noonu ni bëgg nit ñi di ko nit ñi def ko ko nee na nag na fexeel ba def noona nit loolu mooy loolu mooy bi jiitu bu ñaareel bi nee na fexe ba bul woru li ngay jëf te yàlla tax surtout nag taggu nit ñi te loolu bari nañu bari nañu ma yàqal seenub liggéey li ngay liggéey nga di nga di ci bàyyi nit ñi xel ci waa góor ji ثواب sabab wala yoon woo xee da cee jaar ngir bëgg séq ak moom lu rafetul nee la déedéet muñal ko te jéggal ko te xam ne yàllaa ko na tolloo te fas yow nga def lu rafet ca kooke nee na jikko yu la bokk ñeenteel bi na képp koo xam ne réere na sa na sa dayo ba bala ca war joxulu ko ndax na ne kenn ku ne ci nun war ngaa teg sa mbokkum taali bi foo xam ne tey loolu dong doy na waxtaan ci war maal ko ci suutal ko te teg ko fi nga ko war a teg waaye loolu mën naa am nit ko nga umpali ko ba xëy na loolu nga gàttañ lu ci sëriñ bi nee na képp koo gis donte yow xam nga sa bopp xam nga sa diggante ak sa borom xam nga sa diggante ak moom mi li ngay ci dox nit ku ko xamut bul ko ko jàppe ndax wóor na ko ne bu la xamoon daan la mu la war a teg te mbooloo mi lépp suñu borom waajal na ko mi ngi ci biir kon nee nañu bàyyi xel lool léeg-léeg gis koo xam ne sax bu la nuyoo nga nakk nakal mu la ay ah, yow di doo xam kenn wala mu daal la koy jàppe nuyu naa la ñaari yoon wala ñett waaye bu beneen duutu moom du ndax moom du xam kenn daal lay bàyyi na du lool bu baax safara la woo xam ne day takk waaye boo muñee rek day mel ndox mu ci sotti kon nee na képp koo xam ne diggalati na la nee na na nga gaaw maîtriser sa bopp téye sa bopp xoolaat sa bopp ndax jikko yi rafet dëgg foofu la nga xoolee ba nga xam jikko ji rafet dëgg dëgg dëgg nit ki daa mer nga doon xam ne ah waajaa ngi nii jëwriñ ji sëñ Tuubaa doy na ci Xaadimu rasul dafa wax ne afawtu anil ahdaa turan lañ ko won sëñ Tuubaa liñ ko won kenn xamu dum toll waaye musta sëñ baa nga ne ci kees gi ñu ko sëriñ bi ne ko seex muñal rek fii de baa fa duggee ak tey jii bis baa duggee ci néeg bi ak tey jii bu fi dara dee génne mooy sama jëmmi bopp ji maanaam moo fi dugg ak génn waaye leen lu ci fi mën a génn génne maanaam loolu koy bal barab boobee sëñ wax ko fa yoo xam ne yéeme yéeme kon kooku yaakaar naa du mer bay fayantoo te xool li ko teg foofu lañ ñu war a xool bu baax beneen bi ci topp sëñ bi de bokk na jikko yu rafet mooy soo demee ba am aajo nee na bariwaa kook bu ko yitte ju mënta ñàkk ñëwalee mu salit wala mu def lu mu war a def ndax jëlloo moomut abu nit te fasoo koo abu nit dara te fas fasoo woo koo fay ak yeneen ak yeneen yu mel noonu lu mel noonu koy sabab yitte ñëw joo xam ne mënoo téye sa bopp te nee na kon as góor dëgg bu rafet ci ku dëgg bu ko yitte ju ñëwee ju yitte ju taxaw ñëwee foofu nga way xamee fo nee na foofa jëlal makaarimul jëlal jëlal yiw teg ko ci sa kanam xamali ku woomal am na ñoo xam ne bu leen alali adduna nuyoo rek ñu daal ci seen bopp sëñ Cheikh Mbacke mu baax ma daana wax bala nga tàgg nit ndigal ba mu xam ndax ndigal ba mu am ndax ku am ko ne luy cig bëggam bari waa na ko yàlla këpp ko moom rek mu wëlbati ku mel ne keneen nee na nañu bàyyi xel loolu nag ci xéewal yi nu yàlla jox bu agsee ci sa loxo nga xam nga xam na ngay jëflante ak moom bi ci des nag te mooy ci juróom yooyu mooy soo suñ soo soo demee ba am kattanu fayu tañ tooñ ñu tooñ ñëpp xam ne dañ laa tooñ nga am kattan man a fayu daal di jéggale ngir yàlla sëñ bi ne nañ jël yooyu lu am solo te nag jéggale bi ci ëpp solo nag mooy jéggale goo xam ne sañ ngaa fayu man a fayu ba not bàyyi noonu soxna Xadi Mbàkke nafaana law bi barakaatiha moom Cheikh Moustapha man maa ko ma solaaj ne ko sëñ Cheikh Mbàkke fekk ma doon ko solaaj lu bari ba ci mujj gi ma ne ko bëgg naa nga waxal ma benn baat sëñ seex boo xam ne moom nga gën a jàpp ci moom moom soxna Xadi mu ne ah li ma jàpp ci moom di bari na waaye bokk na ci bi ma gën a seetlu day bokk na ci bi ma gën a seetlu mooy day tooñees na ko ba tey mu mën a fayu waaye daa le waaye yëmu ci waaye day fexe ba kookee mu di ko dimbali Cheikh Abdou Khadim ma wax loolu day jéggale ba noppi di dimbali kooka boole ci nee na foofu la sëriñ Cheikh ne ko kon sëriñ bi nag yooyu yëpp nan koy bàyyi bu baax mooy jikko ji rafet ba tax na kon nee na jikko ji rafet ci ne sunu borom tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ Touba ci la jëlee xasida yu bari tag ko ci mu xaddamaatul am daax gis ko ko lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tàgg ko ak ci jikko bi rafet yi kon sëriñ bi na na rafetal jikko yi bu baax te lal taaye ko nag ak bëggante ci suñ biir ak soppante ak wóolante maanaam murid saadix ñeenti mbir bi mooy sa bëgg gi nga bëgg sa sayxul ci yow ba sa xol bii ku ko seetoon du ci fekk ku dul sayxul fi mahabbati cheikhi abad ñaareel bu mooy su mamtisaalu amrihi xëy su warat saa la joxee ndigal bu kàddoom daanoo rek soobul ci ndigal sëñ Tuubaa ko wax de mooy tax nga doon murid saadix de sëñ bi ñu fàttali leen loolu saa bu ndigal jógatee bu fu kaddu sëriñ bi daanoo jógal wuy ci ndigal lool xay su waral beneen ba ci topp mooy na nga bañ a sa bopp dara joxe nga sa bopp nee ko jox sa bopp ëddina ak àlaxira waaye waaye bàyyi mu tànnal sëñ tuwa moo wax loolu salabul ixtiyaar bu tànnal sa bopp dara bàyyi la sëñ bi bu tànnal ndax xam li gën ci yow ku ñu wax ci yi bokk bi muy war a wàccu liggéey ab muul bi ñu teg ci boppam moo ko bindal boppam ni ñuy waxee ak ni ñuy jëfee na Cheikh Moussa mii lu mu wax rek waaw boo dee nekk lu mu wax rek waaw li alxuraan di rëy rëy jël nañu araf waaw doxale ko suñu diggante moom te loolu mooy lu mu wax waaw kon lool loolu loolu kon loolu moo mooy taxu dem ci diggal kon sëriñ bi nee na mi ngi ñu ci soññaat nu fet lewaat la xasaay te xam ne ak taalibe bi ci la lépp nekk ci ak taalibe bi ci la lépp nekk wax naa ko fii barki dem ci kan mars ci discours sëriñ bi bi maam Cheikh rek di jëbal Sëriñ te wax ko ne ko ma jóg de it jox la saa bopp ak sàkku jëmm yàlla wax nañ noonu la Cheikh Ibra jébloon waaye ba ko sëñ bi tontoo ca tontoo la dégg ngeen ko sëñ bi ne ko kii kii koy wuti day muy muy moom sëñ Tuubaa ca kookee mu ko doon wut bi ma ñëwee su ma fikkul woon lenn lu dul asamaan si ma ne tiim na rasulaay wala mu wóor ma ne rasulaay mos naa tiim xool asamaan si man Ahmadul Xadim li ma bëgg ci moom saa pas-pas dana ko may rawatina yow mi nga xam ñëw fekk fi kenn xale li nga bëgg def ko am kon loolu mooy pas-pas sëñ Tuubaa asamaan si dong la woon pour liggéeyal yonent bi sallallahu de nañ fokkat suñu talibi bu baax taxanitale lépp nag tey ak ëllëg nañ